li may tilim tilim yaakaar naa la tijaan ay Cheikh tijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma te ëllëg bul ma seetaan Cheikh tijaan nga fóot ma laabal ma bellil ma te àggale ma may féey ci leer bañ je jannaat ridwaan Cheikh tijaan yaa Cheikhu Ahmadu tijaan mu salimina cofeel gi démb la foofee waa di nomaana Cheikh Tidiane këri yëpp yaay ki ko moom Cheikh Tidiane nguuri yëpp yaay ki ci toog xat mi ya teg mi ya yaa moom Cheikh Tidiane Cheikh a Cheikh yi Cheikh sas njaama ngi abadan man awma cheikh ku dul yow li may tilim tilim yaakaar naa la tijaan ay cheikh tijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma te ëllëg bul ma seetaan cheikh tijaan nga fóot ma laabal ma billil ma te àggale ma may féey ci leer bañ daje ridwaan cheikh tijaan shérif bi yaa ma taway sa wedd wi matam mooy sa njëlli neex na ta doy saw lon du xaaraami Cheikh Tidiane te sax su fekkoon du yow fii ab nawet du fi am ba ay njariñ di fi feeñ yow Cheikhu Tidiane Cheikh Tidiane keroog bu saa taxawee ba sun jaloore ya feeñ ñuy saamandaay ay yonen ñun gaayi tijaan laqtaab ya sex seeni baaraam yay réccu ndax dinu ñee tanaan su doon tey ñu soobu yoonu tiijaan ñuy laaj di laajte tanaan ñi lambiyaa ula noom ay mursaliin ñu naan ñoo di tijaan yéen gaayi seex yi ala nabi wa alayhi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 أجمعين سلام ربنا جاي